mën bokk ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la waaye nag bu dee cour suprême maanaam ci li nga xam ne maanaam cour d'appel wax na ko loolee du tax Ousmane Sonko génn ci mball gi ndax lu jëm ci mbiri Adji Sarr ma ngi waaye nag mbiri Adji Sarr googee ak lu soxal wàllum corruption de la jeunesse loolee député yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi mën nañoo def ab proposition de loi ngir nag ñu Teranga moom nee na ay élection ci Sénégal te Ousmane Sonko du ci bokk loole sax xel xalaatu ko te képp koo xam ne yaa ngi dafa mel ni yow àndu ak sa xel loole ci boppam moo munta nekk maanaam tëgg ay élection ci Sénégal gii te Ousmane Sonko njiitul Pastef bokk ci loole munta nekk munta antu kàddu yu Mangala yéen kaay gi di duñu xibaar nan ñu dialogue national xam ne ñoo ko doon def xam ne moo ci ëpp solo gars yi déggoowuñu see ndax lu soxal lu soxal wala yu mandat yu baree bare gars yi kenn koo xam ne da nga yor ay ndombay tànk yu bëree bëri kenn ku nekk na yor benn ndomba tànk waaye nag loolee gars yi déggoowuñu sa yéen kaay gi du l'observateur xëy di ñu xibaar naan ñu dialogue politique bi nga xam ne moom la ñu doon amal Khalifa Sall gagné na ci waaye Khalifa Sall perte na see li ci Khalifa Sall gagné mooy fexe na ba a bokk ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye nag li nga xam ne Khalifa Sall da siy am na genn congo lonko goo xam ne ma ngi ko topp muy lu jëm ci wàllum luubal alalu askan we maanaam détournement deniers publics loolee ba léegi maanaam ma ngi ngi ci deroob Khalifa Ababacar Sall yéenekaay gi de La Tribune xëy duñu xibaar naan ñu ab deal boo xam ne moom la ñu def waaye nag jëmale ko ci ndoddul justice bi La Tribune mooy wax nee na dialogue politique bi ab deal la boo xam ne moom la gars yi def waaye nag li nga xam ne moo am ba desal condition yëpp dajaloowul ngir nag ñu mën a wax ne atte Karim Wade dañu koy xoolaat ndax amul lenn loo xam ne lu ci bees la yéenekaay gi di 24 heures xëy duñu xibaar naan ñu avocat Karim Wade yi ñoom tim démb leeral nañu génne nañu ab communiqué nee nañu Karim Wade éligible na maanaam nekk na électeur 21 août 2020 yaakaar nag article L29 bi su nag daf lay génn ci liste électorale yi bu ñu la tëjee juróomi at article L30 daf la ciy dugalaat bu juróomi at yi weesoo te Karim Wade juróomi at yi nga xam ne moom la ñu ko tëjoon ñaar fukki fan ak benn ci weeru août 2020 la daal di jeexoon tàkk yéen kay gi du source a xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum kër yi ngir nag ñu daal di koy réformer xoolaat ko loolee nag temps bu bëree bëri lay jël am na sax ñenn ñoo xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum yoon nee nañu fii ak 2024 loole see nekk ndax war nañoo def ab proposition de boo xam ne assemblée nationale lañu koy yóbboo bu ñu ko fa yóbboo député yi voté ko ñu jël ko jébbal ko njiitu mi mu war a promulguer décret d'application yi yéen kaay gi de la témoin nee na ñi nga xam ne seen xel màcc na càmbara ci lu jëm ci wàllum politique ñoom nag wax nañu ni nga xam ne moom la ñu gisee dialogue national bi nga xam ne moom la ñu doon amal ci réew mi nee nañu benn échange boo xam ne moom la Macky Sall doon def maanaam na bàyyi Karim da Khalifa Sall ñu bokk ci élection yi moom tim mu moo tax mu daal di koy weccee ak bokk Karim yéen kaay gi di direct ñu xëy fekk fa Adama Faye nee na Macky Sall ci boppam moo amul sañ-saña maanaam di sampan dëndam te kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñoo war a wax ak Macky Sall journal bi de le peuple quotidien ñu xëy fekk fa Mouhamadou Lamine Massaly moom nag yàkk na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Adama Faye nee na Adama Faye waxam ju bëri yëpp maanaam day chantage waaye nag na ko leer ne mbir mi du jàll te amul benn ma ci kilifa diine yi ñaareelu quinquennat bu Macky Sall loolee demande sociale la yéen kaay gi di li quotidien ak réew mi quotidien xëy ñoom nag tey ji ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin dañoo bëggoon a amal ab rassemblement préfet bu ndakaaru da leen ko ñoom nee nañu tey ji jàmm la paix woote na gaa yi sol yëri yu weex yéene kaay gi di enquête ak réew mi ko di jenqi di ñu xibaar nañu avocat bii di Juan Branco yóbbu nañ ji turam Sénégal ak kilifa yu bari ci réew mi ci kanamu CPI maanaam cour pénale internationale ci l'info ñu fekk ko fa moom avocat bi nee na lu toll si ñeenti junni yu fekk juróomi téeméer ci élément de yoo xam ne amee na ko journal bi nee na lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaar ñoo xam ne jàpp nañu ne laale nañu ci ñooñee tamit bokk nañ ci ñi nga xam ne yóbbu nañu leen ca kanamu CPI am na lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar xam na ko CPI yéen kaay am sañ-sañ daal leen di saisir ñii la maanaam ab état wala conseil wala procureur ñoo am sañ-sañ saisir xam ne ñooy waa CPI moom ay Tall Sall nee na mbir mi sax dafa daal di reetaanloo waaye nag ba mu daanelee Juan Branco nee ko li nga wax dara teguwu ci ndax article 15 may na kenn ku nekk mu daal di jël ay élément daal di koy yóbbu fi nga xam ne mooy CPI yéen i kaay gi de Le Quotidien yor yora xëy duñu xibaar nan ñu Juan Branco niki démb def na ay révélation yu bëree bëri maanaam sulu na ay mbóota daan nay wax ne présidence maanaam livré nañ leen lu toll ci cent quatre tonnes ci ay armes yéen i kaay gi de Libération Juan Branco moom nag sàkku na ci procureur bu CPI maanaam ñu ubbi ab mi ci ni mu gën a gaawee Rewmi Quotidien na Macky Sall Paris la France yéenekaay gi di Direct News nee na dafa am ay gars yoo xam ne ñoo nekk bitim réew bëgg yàq image su Sénégal bëgg a déstabiliser Sénégal bëri na ay ëttu taskatu xabaar yoo xam ne ñoo nga nekk ci bitim réew traitement tendancieux bi nga xam ne moom la ñuy def ci événement yi nga xam ne moom moo xew Sénégal loolee lu doy waar la ndax gis nañu ne Jeune Afrique di France 24 di RFI di TV5 ni nga xam ne moom la ñuy parparloo ci li nga xam ne moo xew ci Sénégal jéggi na dayoo mbir mi sax mën nañoo jàpp ne ab complot boo xam ne moom la gars yi teg ngir déstabiliser état bu Sénégal France ci boppam jamono ji dafa dugal loxoom ci Sénégal loolee ñuy woowe ingérence ay propagande yoo xam ne gars yi ñoo ngi koy def contre état du Sénégal droit de l'hommiste yoo xam ne jàpp nañu ne Macky Sall ab dictateur la Jean-Luc Mélenchon moom jamono ji moo nekk ci bopp projet bi nga xam ne ngir déstabiliser Sénégal la lii mën nañoo wax ne ndax du complot journal bi di Direct News moo xëy di ko faram-fàccee ak di ko càmbar yéen i ñu xëy fekk fa Ndiaye Bambey daan nay wax ne su dee am na ñenn ñoo xam ne ñoom lañ war a yóbbu CPI mooy Ousmane Sonko ak Déthié mel ni ñoom ñi nga xam ñoo recruter ay nervi ci réew mi Ndiaye Bambaye ci biir journal bi laaj na ñaari laaj ki nga xam ne mooy Juan Branco nee na ko lan nga xalaat ci ñi nga xam ne ñooy ñaax ndaw ñi ngir ñu taal réew mi ak discours criminel bi nga xam ne Ousmane Sonko mën ko yëkkatee yéen kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar mbir mu doy waar nee na benn chef d'entreprise boo xam ne moom la ñu tuumal ne dafa sàcc juróomi millions yoo xam ne jabaram moo ko moom jabar ji li mu wax mooy bi mu nekkee ci toilette yi la jëkkër ji tojee juróomi millions yee journal bi nee na sëy ba ci boppam jamono ji ma ngay waaj a tas ji dafa dem porter plainte ca kanamu dikk